mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan walaaw yaxsimuka min anaas yaa allah barke borom tubaa eh, noo ngi siyaare waa daayira muxaddamaatul xidma ginnaaw bi ñu jiitalee ci siyaar bi Cheikh Mamadul Muntaqa eh, siyaare sëriñ Yaafi bu sa al imam muy sunu jawriñ ji nga xam ne moom lañ fekk si léegi ci jumaa ji eh, fekk fi tamit jawriñ yi nga xam ne ñooy taxawu liggéey bi muy secretaire général bi nga xam ne muy sëriñ Abdoul Ahad Moutalib Bousso euh, ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso maam asta mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi ci wàllu diaspora bi nga xam ne mooy jiite commission extérieure ak sëriñ Abdoul Ahad mi nga xam ne moo jiite commission bi nga xam ne mooy commission culture bi ci wàllu xam-xam bi ak taxawaay yi nga xam ne euh, ñëpp miin kon nag ci taxawaayu diaspora ndax ñaare fuñ ma gis ci bitim réew rek gis nañu ci wetam ñu ànd ci di yaatal liggéey bi euh, ñu am mbégte loolu nag teew fi muy teewal fii euh, fédération daayira Cheikhul Khadim fédération mu Muxaddamatul Xidma Espagne ci njiital alxaaji Abdou njaay mi nga xam ne moo jiite fédération Îles Canaries ak Serigne Bakke Ndiaye mi nga xam ne moom lañ fi teewal moom nga xam ne moo nekk ci bopp fédération Serigne Touba yi ci Espagne yëpp. ak jëwriñ sëñ Adi Touré mi nga xam ne kenn ku ne xam ne ne membre daayira Muxaddamatul Xidma la ndax moom daa bokk ci membre fondateur yi ak jëwriñ ji nga xam ne Alhaaji Abdou Ndiaye moo yëkkati liggéey bi teg ko ci loxoom muy sëriñ Gañ Kama nga xam ne moom eh, day koo xam ne du kenn du ko ñuy fàttaliwaat liggéey bi waxtu wul liggéeyal jumaa ji jotee eh, wax na ma ko léegi sax ci biir na ma sëñ Assane ren dégguma la benn yoon ndax eh, woowu ma sax soññ ma mën na ko xam sa sa pësteef ak sa taxawaay ci liggéey bi noonu laa ko leerale léegi kon sëñ ngañ jërëjëf euh, ki nga xam ne tamit moom lañuy bëgg a jëbal kàddu gi euh, yaakaar naa bàyyi daam dégg nga ko euh, sa Pastef moom jumaa ji yëg nañ ko ci li jiitu ngay agsi fii ndax waxtu wu yëkkatee seen kàddu rek tudd nañ la loolu nag loolu la sëñ Touba la ba fédération Espagne bépp juboo ci tànn bay Dame mi jox ko maanaam coordinateur bi nga xam ne coordinateur général pour ma ci daayira muxaddamaatul xidma bu Espagne mu ci taxaw taxawaay bu mag boo xam ne euh, daayira par daayira lay woo du bàyyi kenn euh, bépp jëwriñu sëriñ tubaa rek bàyyi daam woo na la muy guddi muy bëccëg soññ la lu jëm ci liggéey bi ba kenn ki ne gis na résultant bi nga xam ne fédération Espagne am na ko ci liggéey bi nga xam ñu ngi ko indi ci jumaa ji muy koor gi muy màggal gi kon nag jërë ngeen jëfati xam naa dañuy jëbbal kàddu gi Euh, euh, Alaa Jabdu euh, wala Baye Daam ñoo ngi toog bu ko defee ñu wax ci turu mbooloo mi li ma koy tëjee nag mooy liggéey bu mag boo xam ne tamit maanaam MKTV liggéey na ko ci ndax kenn ku ne xam ne ne bi màggal gi jub sax jàllale nañ suñ benn vidéo jàllale compte bi nga xam ne mooy compte Muxaddamatul Xidma Espagne Istiqaama moom itam di ci liggéey liggéey bu mag léegi rek maa ngi koy waxtaane maak ak Baye Daam ajjuma yi da koy def en direct jàngatu xutba sëñ sëñ Amadou Rafael da koy def en direct eh, xutba imaam Cheikh Abdou Diop jumaay sëñ Omar Diop Diobène da koy def en direct ba tey kenn ku ne xam ne ne eh, ay jëfa ngi ci yoo xam ne mbooloo mu dégg liggéey sëñ Tuubaa bi xam ne liggéey bu wér la laaj nañ leen ko ci fuñ xamee te dañ koy yóbbu eh, laaj nañ leen luñ mën te dañ koy yóbbu fuñ xam ñooñu ñëpp wuy si nañ ci kon ñooñu itam ñu ngi leen di beral suñu cantu bopp. nga xam ne li li ñu leen li ngeen li li daloon seen xel ci gis compte bi ci ci ci ci ci ci YouTube bi wala ci internet bi ba dugal ci seenub dërëm tey jii looloo lañ dajale indil ko jumaay Seexul Xaddim ji teg ko ci loxol sëñ Yaafiya Buso fekk fi suñu kilifa yii ñu jëbbal leen ko waaw mu toll ci million 2 millions 154 euh, mille kon yàlla na leen yàlla fay ñu yàgg koo jëf yàgg ko indi ci jumaay sëñ Tuubaa di di jaajëfal jaaj diaspora yëpp ndax waxtu wu ne ñu ngi ñuy yónni ci ñoom muy Amérique fondation Amérique bu Seexul Xaddim bi nekk Amérique ci taxawaay bu mag boo xam ñu ngi koy liggéeyal sëñ Tuubaa ci jumaa ji muy koor muy màggal muy gàmmu ñoom ay calendrier lañ koy def lépp wutal nañ ko loo xam ne bu excès rek ñu soñee ci te loolu mi ngi ñëw bu dee bu dee Europe ak Asie Afrique ñëpp bàyyiwuma kenn léegi rek sëñ Blaat mi ngi koy wax di tudd jëwriñ yi ba tudd sëñ ma Fëri Njaay mi ngi xam ma nekk diaspora ci ci Afrique ak soññe bi ndax buñ tuddee ji bu ñu tuddee jëwriñ yi rek ñen tudd lañ jiital kon nag ñu ngi jaajëfal ñëpp tey woowaat ñëpp ci liggéey bi xam naa kàddu di gudd na waaye dama koy def benn message rek woowaat ñëpp ci liggéey bi ñu gën a soññuwaat suñ bopp te xam ne fii kenn ku ne dégg na li ci sëñ Tuubaa wax mooy fi ko gënaloon ci fi mu doon liggéeyal fi ko gënal ci ci ci ci ci bërëb yi ko sëñ suñu borom jox fii di fii di Tuubaa te moom la tànnaloon boppam ne bu ab liggéey matee fii lay ñëw dalloo si te kenn ku ne xam ne Seexul Xadiim mi ngi ci jumaa ji kon liggéey boobu ñu ngi ci soññi ñëpp yañ fi yañ fi waxoon daawit muy matériel bu jëm ci jumaa ji muy échelle électrique boobu bañ ko waxee booba ak léegi liñ ci war a def ci communication def nañ ko muy maanaam lu jëm ci euh, wàllu aspirateur yi loolu tam lu ci ëpp France jënd nañ ci Espagne sëñ bi Abdou mooy ci jiitaloon euh, ay ay ay ay ay ay ay jëfam euh, cette bi nga xam ne suñ Abdou Lahad maam Asta yëkkati woon ko ci kàddug daayira bi kàddug suñu afiye wax ne soxla nañ fi cette boo xam ne day doon cette année boo xam ne moom day nekk ci moomeelug jumaa ji muy oto citerne boo xam ne day man di di jaabante ci biir jumaa ji ak bàqiya gis nañ vidéo yoo xam sax ñu koy dagg di ko tasaare waaye jàpp naa ne murid yi nga xam ne ñoom seen gëm-gëm ak bëgg sëñ Tuubaa bëgg koo liggéeyal eggoon na ci bi sëñ Cheikh Mouhamadul Mountakha tuddee Lac de ñu bëgg koo indi fii ci Touba jàpp naa bu ñu déggee ne jumaay Touba soxla na oto yi citerne yaakaar naa loolu du fanaan dañ ko indi kon ñoo ngi ciy woo ñëpp ci ku bëgg a liggéeyal Seexul Xaram daayira bi am yitte jooju bu ko defee bay Dame kon xam naa loolu rek lañ ci wax euh, sëñ Fallou Mbacke tam wax na ma léegi ne ma citerne bi bu ñeen ci mënoon dolliwaat sax te camion boo xam ne day doon camion boo xam tam camion maanaam buy mën a jël ay mbuubit wala dara ñu dolli ko ci bu ko defee loolu tam ñu jugaale ko kon nag yàlla nañ ci daje barke waqi daa waaye jëli si na daamoo fi xidmati wablu maara ina lisina saarawan li xidmati falamu diyaar wasal jannati wax jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki julli di njabootu seexlu xaddim gi ñi ngi dellu di leen nuyu di leen siyaare di nuyu sunu sang tedd bi sëñ Muntaxa Mbàkke yal na fi lool te àdda wér ak wérle ak njabootu nga xam ni moom laa dal ci liggéeyu seexlu xaddim bi di nuyu itam sunu sang bu tedd bi nga xam ni moom la yàlla dogal mu yoral ñu barab bu tedd bi e muy sëñ Afia Boussa ñu ngi koy jox sunu nuyoo mu jotal ñu ko njaboot gi nga xam ne moom laa ndal waaye teg ko ci loxol sëñ Abdoulaat sunu moom mii yal na yàlla fayal ñu ko ak taxawaayu démb bi nga xam ne moom la àndal liggéey bi sunu kàddu nag du ci sori xanaa di santati santati ñi nga xam moom lañu àndal liggéey Cheikhul Khadim bi nga xam nekk ci Espagne ak Europe gi yëpp yàlla dogal na ñu teew fi ànd ak dong bii ñuy wax Cheikh Assane Diop mu xadamatul xidma waaye ànd sunu rakk sunu lépp di alajaa di Touré bu palmarama yor ko duñ ko présenté kenn waaye ànd ak sunu rakkate sunu jarbaat sunu lépp sëñ maam daam loo moom Cheikh Moustapha waaye ànd ak si itam Ngañ Kama mii nga xam ne moom la yàlla dogal ma nekk ak moom Tenerife nga xam ne lépp lu ñuy lijjante ci loxoom laa koy teg kon ñii buñ leen tuddee rek day yóbbaale njabootu Espagne gi yëpp nag e bépp daayira boo xam mi ngi Espagne ñu ngi koy jot sunu nuyoo di ko sant ka gërëm ndax dañuy def su at mi ñëwee rek dañuy ñëw fii ci wetu sunu sang bu tedd bi sëñ Afia bu sa suyaare ko jottali ko sunu addee ji nga xam ne moo jógee ci liggéeyub Muxaddamatul Xidma bu Espagne ak njabootu waa àll bi yëpp nag bépp fu waay nekk ci àdduna ñi ngi koy dellu di ko soññati ci liggéey bi nga xam ne moom lañ bokk ci liggéey Muxaddamatul Xidma bi bayuma benn dëkk na fu waay mu nekk moo xam dafa nekk Afrique wala Asie wala Europe ak fu mën nekk rek ñi ngi koy soññ ñu dellu xam ne liggéey bii nga xam ne mooy Muxaddamatul Xidma nag moo fi nekk ko wax dëgg yàlla eh, kon nag maa ngi soññ bépp taalibe foo ay mën nekk ci àdduna yàlla na ko yàlla defal wiir ak wiir la ba mën a liggéeyal Seexul Xaddim waaye liggéeyal jumaa ji nag yàlla na yàlla dool leen jàmm sutura e, saa borom may ñu fan wu gudd kon sëñ Abdoulaat ñu ngi koy jottali sunu njaboot mu jottali ko njaboot gi yëpp kon Cheikh Hassane loolu lañ ci di ko xanaa ñu jox ko sunu mbokk mi sëñ Alaji Adi Touré mu jottali ko ak Cheikh Hassane son maam daam loo waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yëkkati ko yëkkati ko wa barakatu ñoo ngi nuyu waa muxaddimatu xidma di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sëñ maam sëñ Abdou Lahat ak sëñ Abdou Lahat ak sëñ Abdou Maam Asta ñu tegal nu ko ci loxo sëñ Afia mu jàllaleel nu ko ci ki fi nekkal Sëriñ Touba muy muy sëñ am mu sëñ Muntaxa di Muntaxa di ko ñaana gudd fan ak wér di ko ñaanal bépp jullit kàddu yi moom du ci bari kàddu yi sant rekk la ak euh, soññee ci liggéey bi bi nga xam ne moom lañu jiite muy commission Moukhaddamatoul Khidma bu Espagne di ci jiital suñu jëwriñ Serigne Mbacké Ndiaye ci nuyoo bi di ci teg Assane président Moukhaddamatoul Khidma Espagne di ci teg suñu mag suñu kilifa Alaaji Abdou Ndiaye ak sëriñ Adi Touré bu de Mallorca ak sëñ Assane Kawan ñu àndal waaw ñoo ngi sant képp koo xam ne nii nag woowoon nañ la ci commission bi te nga wuy siñu ak jëwriñ joo xam ne ni woowoon nañ la ci daayira bi te nga wuy suñu kon ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen gën a soññaat ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu sëriñ Touba di liggéeyloo muy jumaa ji di leen xamal na jumaa ji rek moo fi des ci liggéey Sëriñ Tuubaa xasaayid yi di kon war nañ koo gën a fonkaat bu baax nañ ko fonke woon te ni ma koy waxee toujours rek fonk gi maanaam am na sax waaye des na ndax yëngu bi ñu ci waroon a yëngu mën nañ cee gën a yënguwaat daal ndax lii nu indi ah xëy na am na solo amul solo waaye mënoon nañ fi indi lu ko ëpp ndax lu toll ne Espagne buñ naan juróom-benn fukki daayira comme ni ma ko waxee ak nangam ah kooku waroon nañ bu nu ñëwee fii rek indi fi loo xam ni dana wuuteeg liinu nu fi indi kon nag ñoo ngi ci soññ sunu bopp di ci soñ Touba Asturias ganu nekk di ci soñ jullit ñëpp daal pour ñu gën cee góor góorgóorluwaat taxaw ci taxawaay boo xam ne nii daal dana yéeme dana wuuteek bii nu ci taxaw. noo koy ñaan sunu borom bi mu defal nu ko defal ko bépp jullit ah ñun ñëpp ñu bokk ci taxaw ndax liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo fi des leneen desu fi waaw ah, kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di balu àq ñëpp di balu àq ñëpp wax ji kàddu yi moom du gudd sëñ Assane moom moom amel nañ ko cant goo xam ne nii moom it ah cant gu yéeme la ndax fu mu toll mu ngi ciy soññe di ci dox doxin wu yéeme man fu mu toll mi ngi may woo naa ma soññal gaa yi soññal gaa waaw su ma amee pas-pas it sëñ Assane ci la waaw rawatina nag sama mag ji Alaaji Abdou njaay ak Alaaji Adi Touré mi du liñ fi toog mais bés bu ne loolu lañ may wax soññeel bu baax soññeel bu baax moo tax damay jël sama téléphone jëwriñ ju ne ma woo la loolu bëgg nu dolli cee góorgóorlu te ñoom jàpp nañ ci bu baax kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram sëñ Abdou Lahad ñoo ngi leen di siyaare bu baax nga siyaareel ñu bokki jullit yëpp siyaareel ñu suñu affaire ne ko mu dolli ñu ñaan bu baax a baax ndax yéen kat fii ngeen nekk di fi liggéey lu ngeen ñaan suñu borom dana ko def kon nag ngeen ñaanal taalibe yi bu baax a baax a baax bañ mën a gën a góorlu ci liggéey bu sëñ Tuubaa bi jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu rahmatullahi saddit lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraay mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki daayiratu muxaddamatul xidma Touba ak Espagne ak àddina bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu bi si fadilati Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ñaan sunu borom yokk ko wér ak gudd fan ak kàttan ba lépp lim naaral Serigne tuuba mu liggéey ko te ñu ànd ko ak moom di nuyu al imaamul akbar Cheikh Afia Bousso ak mboolem ñi nga xam ne bii ñoom la bokkal jumaa ji ak daayira muxaddamatul xidma ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara ci turu fédération Espagne di it sunu wëllëre yi nga xam ne bii ne ñoom la fekk fii ci barab bi muy borom turi sell yi Cheikh Abdoulaat Moutalib Maasta Cheikh Abdoulaat Thierno ak ñëpp rek sëñ Fallou Mbacke ñoom ñu nga xam ne ñoom ñoo nekk fii nekkal ñu fi ba noppi di génnaat ci bitti di yokk seeni jéego ak seeni soññee ngir bëgg rek liggéeyu Serigne Touba bi e, nekk ca kaw du laal suuf te damay wax ne soññ taalibe yi ak waa diaspora bi ñëpp e, dafa mel ni jumaa ji wala Muxaddamatul ma ñaari xew-xew rek lañ ñu tàllal loxo bu njëkk bi mooy weeru koor kon ñëpp nañ ko bàyyi xel xane bi ni lépp luñ ci def wala lépp luñ ci wax doyut waaw ndax foo xam ne fii ni bi bu set lu ëpp ñetti junni ñeenti junni nit dañ fay xéewlu ngir yàlla rek te laaju ñu la ca dara dinaa la sax sarax ma ndogu fii rek lañ ko gise fii ci jumaa ji it ñu amaat beneen liggéey boo xam ne bii ne bu safar teroo li tàmbalee ci fukki fan yi ba ci fukki fan yi ak juróom-ñett wala ñaar fukki fan yi ak benn lu man ñetti junni nit su juumut lu teg dañuy nekk fii yor liggéeyu jumaa ji di fi xëy di fi gont suba ak ngoon ñooñu seen euh, pas ëpp na kon nag xéewal yi nga xam ne bii ak teraanga yi nga xam ne bii ñoom lañ fi ñëw fa nekkale nii te képp kenn ci ñun ku nekk waroon na laxasaayu ba sa kër ñëw di taxawul sëriñ Touba liggéey bi ñoo ñu nekkal ñu si kon ñoo ñu wax dëgg yàlla lépp lu luñ soxla ci mbiri xéewal yi war nañ leen cee war a barkeelu bu baax a baax. te dafa mel ni lii ñuy def ay barkeelu kese la waaye nag euh, dërëm ak junni bu ñu leen dee méngale yéen a jaatax ndax dafa mel ne euh, sëñ ma siise ndongo ak Cheikh Ibrahima Fall kenn ku nekk yónnee woon na addiya gànnaar waaye Serigne Touba dërëm ba la yëkkati di ko di ko di ko màggal ca kaw junni ba kon nag ñu ngi ñaan suñ jëf yi tamit ñu sëriñ bi yëkkatil ñu ko tegal ñu ko ca yéen jooja ne bu ñu fi indee million walla milliard xam leen ni yéene woon nañ fukkam walla junneem incha allahu ñu ngi ñaan it ngeen jàppale ñu ci bu baax a baax léegi nag ma dellu si di nuyu nag sama kilifa yi ma àndal muy waa fédération Espagne Alaaji Abdou njaay nga xam ne bii ni li gars yi wax du sonn infatigable nu ñu koy waxee ci France Cheikh Maam Dame Lo Cheikh Moustapha Al Karim nga xam ne ñaari at yi ñu jël commission bi teg ko ci loxoom wax dëgg yàlla Assane yaa ngi toog suñu blaat yéen a ngi toog xam ngeen ne Espagne moom noppalu na lool noppal nañu ci liñ daan soññ noppal nañu ci ni Assane daan wëree ba ci Palma gii ñu dëkk kon nag sëñ maam daam jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di santit mboolem jëwriñu sëriñ Touba yi nga xam ne bii ni ñoo ñu wuy si wala ñoo la wuy si ci woote bi ci kilifteefu Baye du Ndiaye ndax juróom-benn fukki daayir yooyu ñuy wax Espagne yëpp buñ ko limee yaakaar naa ne amaguñ fukk ak juróom mbaa ñaar fukk ñu ci wuy te lépp loo lu ngeen gis ne Espagne def na ko fii bu dul tapis daayira yooyu wuy si wuñ ci kon nag jumaa ji nag moom biñ nee tapis spécial liggéeyu boppam mbooloo mépp ñëw nañ ci waaye noonu ñu koy wooyee lañ koy wooyee kab ba kab mën nañ koo tàmbalee Canarias ci suuf ba Balear ca kaw tàmbalee ko Andalus ci suuf ba Aragon tàmbalee ko Castilla León ba en ba ba ba commune Valencia ak biir Espagne gépp fu fi ab taalibe ne waxuma ab daayira fu fi ab taalibe ne na nga fexe ba saw ñaq dugg ci liggéeyub jumaa ji barki démb damaa dem dëkk bu ñuy wax Kalara Jaar daja fa ak nit mu ne ma day sàkku ndimbal ma ne ko ah man day yoruma lu bari waaye géej gii ma taxaw ci Palma de ak géej gi ca Casamance ak Mbuur yaakaar naa ndox mi laalante ne mu ne ma waaw ma ne ko kon nag sama litre ndox bi laa ciy sotti fu ma neex nag tànk kon liggéey bi noonu la demee képp ku ci def sa dërëm xamal ne yàgg fondement jumaa ji yéen a yem képp yéene waaw loolu nag lañ ci amoon loo xam ne la ñuy soññ sunu mbokk yi di soññ mboolem kuy jëwriñ ndax eh, bari wax taxul ñuy wax mën a wax it ñuy wax waaye yàlla xam na ne suñu yéene ci jumaa ji ak liggéey bi romb na fii te teguñu ko fenn lu may ci kanam jëwriñ yi ndax sëñ gan kamam yi nga xam ne bii ne bu fa bàyyi du nekkee bu fa néewul yëpp dana taxawu mboolem luy Canarias waxuma sax ili ili Canaries lii Tenerife dana ko taxaw noonu la ko jëwrin yëpp di taxaw bu ñu waxee demee Madrid sëñ Baara Ndoy Cadiz Alaaji Modou Diop Almeria Baye Ousmane Sow euh, Valencia Baye Mbacke Amar ñoom ñëpp ñi ngi taxaw ak waa Catalonia Bidaayatul Xidma ñëpp àndoo ci gannaaw fédération bi ci njiitul jëwrin sëñ Mbacke Ndiaye kon nag loolu lañ leen bëggoon a wax di la waxal ne li ñu bëggoon ci li ñuy wax ci jumaa ji ay yitteem Assane wax na ko léegi rek mi ngi wax ne am na ay batterie yoo xam ne ñu ne sa nañ ko ci liggéey bii ñëw lu bokkul ak lii ñu andi Baye Abdou Ndiaye wax na ma ne am na yeneen taalibe wala yeneen addi yoo xam ne mi ngi ci gannaaw di ñëw kon dafa mel ni lii dañ koo tàmbalee rek ngir bii ne màggal gi li des bëreetul te nit nag moom loo koy téyel bala ko taxoon di ko laaj jot jox ko jot su baree dañ koy indi bu néewee dañ koy indi Baye ñu ngi leen di sant di sant sëñ Abdou Lahad ma Thierno sëñ Abdou Lahad ma Asta sëñ Abdou mu Talib di sant yi sëriñ Afia ndax dafa mel ni yéen li ma wax seen tur yi bu wuy jiyee turu Cheikh Abdou Lahad ñàkk caaxaan war na ñoo xam ne bii ni kon fii lu fi dikk tegu na ci aw yoon ngeen baal ñàkk bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di jégalu benn baat buñ ci bëgg a doole rek mur di wax ne ñun ñi nga xam ne bii ñoo nekk ci bitti képp ndaw. kenn ku jóge fii ci jumaa ji ci turu daayira Muxaddamatul Xidma nañ ko jàppe ne jëmmi mu daayira Muxaddamatul Xidma fi ñëw jëmmi sëriñ Afia mën nañ koo tàmbalee ci sëñ Abdoulaye Maam mi bi ñu njëkk di ko laase mu ànd ak Assane ak sëñ Maam Moor ba ci ren jii sëñ Abdoulaye Maam Asta ñëwal na boppam ñu ngi door a génn ci pandémie léegi amul waaye fépp fu daayira ne fu am maanaa wala foo xam ne fii ne mbooloo maa nga fa yëngal Muxaddamatul Xidma jël na tànkam ba dem fa waxtaan fa soññee fa te biñ dikkaate fii ñu ngi ko fekkaat fii ci liggéey bi mu taxaw di ñu gàttandu kon nag loolu ñun ñi nga xam ne bii ni ñun ay benn ki ñaar dong lañ ñuy laaj te ñu tamit liñ ñuy laaj mu néewoo ñu bari ñoom ñii di Moukhaddamatoul Khidma kenn ku bokk ci ñoom ku dëggulu sas ba noppi wëlbatiku di liggéeyal daayir bi amu fi ñii ngi ci xam bi ñii ngi ci culture bi ñii ngi ci social bi ren jii bi ñu ñëwee ci koor gi damaa dem ba yàgg sama yaram daw li mu dawee mooy dama ak sëñ Abdou mi sëñ Abdou Lahad Thierno ñu dem ci sëñ imam sëñ Fallu dem ci sëñ Afe dem bàq ya dem ci buub kër ya dem ci sëñ As Jaxate dem fépp foo xam ne fii ne luy liggéey ci jumaa ji la dem nañ fa yëkkati loo xam ne lii ne kawe na suñ njor jox leen ko ci turu diaspora muy social boo xam ne bii ni dafa mel ni li ñu fi indi sax dañ koo doublé dolli ko ci joxewaat ko te yëmul foofu loolu rek ñoo la ñu wan ñun waa Espagne te bokkul ak ndogu yi bokkul ak xéwal yi bokkul ak dara loolu nag jëf ju leer la joo xam ne jii ne li suñu blaat waxoon ne bu la nit defalee dara ren ba déwén déggoo mu wax ko fenn ah dafa mel ne kon booy wut seen man nag wax dëgg yàlla seere lu ma xamul man xaw ma ko waaye lii ma gis ci weeru koor ñu def ko jaroon na jullit bu nekk loo am bu dee fukk boo munta joxe léppit nga génnee asaka wala addiye ja tegal ko mu xaddimatul xidma looy def nga door ko caa def ndaxte ka li ma waxoon ci géej gi rek moo fi nekk borom liitarum ndox ak borom bërigoom ndox moom buñ sottee ci gi kum neex nga tànq loolu neex ndax kenn mënul wax ne fii nga yemle wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaw waaw som bi nga xam ne bii ni jébbale nañ ko fi ci euro aratu asan wax na ko léegi tey mi ngi toll ci deux mille neuf cent deux mille deux cent quatre vingt dix euro buñ ko wecc koo ci tout trois mille astaghfirullah trois mille deux cent quatre bu ñu ko wecc koo ci toogu six cent cinquante dana nekk deux millions cent cinquante quatre mille waaw bu fekkente ne wecc bi àgg na foofu su ko fekkee da ko ëpp it noonu la bu ko manqué ñu jéggulu ko rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aouzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp ci. seen seen MKTV Muxaddamatul Xidma TV ak Al Istikhama TV ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ak ndokkeel bi ci <clears throat> weer wu tedd bi ñu nekk ak bis bu tedd bi nga xam ne moom lañu dëgmal Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy jëwri ni borom liggéey bi te di ko ñaanal suñu borom mu may ko gudd fan ak wér te defal na ko nitam Euh, di leen nuyu ci turu Serigne Afia bu sa imaam mi nga xam ne <clears throat> moo leen dalal léegi euh, ak ci turu daayira Muxaddamatul Xidma Serigne Abdou bu so mi nga xam ne mooy secretaire général bi topp ci Serigne Afia toog nii Serigne Abdou Lahad Bousso maam Asta mi nga xam ne moo jiite commission sociale et santé et relations extérieures moom it toog nii euh, ni ko Serigne Adi waxee léegi bu yàggul rek ñëw na fa ngir. dem ci barab yi ngir fëgg fëgg gilin yi muy liggéey bu am solo boo xam ne tamit am baax na ci su ko defee kon kàddu yi nuyoo yooyu ma ma ma yëkkati yëpp ñu ngi koy yëkkati di ko teg ci seen loxo muy loxol Alaaji Abdou Ndiaye mi nga xam ne mooy kilifa gi yoon wi eh, eh, seen jataay bi teg ci sëriñ Adi Touré mi nga xam ne mooy jëwriñu Palma di ko ak Baye ma Baye Daam Lo mu Cheikh Moustapha Al Karim ak sëriñ Ngam Ngañ Kama mujj ci sëriñ Assane Diop mi nga xam ne mooy sunu coordinateur di jàmbaar lool ci liggéey bi euh, sëñ yi wax na ko léegi euh, <coughs> yéen bu fekkoon ne dañuy wàcc ci yoon wi dëgg yàlla muy muy muy muy El Hadj di sëñ Adi ak sëñ Baydam Lo kenn ku nekk xam na ne yàgg ngeen a taxawu liggéey sëriñ Touba yu rëy ci yoon wi muy ay daayira yu mag takk ko indi fii ci gi fi nekkal sëriñ Touba ngeen doon ay jëwrin yoo xam ne ku ñëw fa ngeen nekk xam ne mat ngeen jëwriñ ngir soññe ba ak jiitu ca jëf ja loolu de du lu am solo loo xam ne wax dëgg mënees na koo seede ci yéen ci waxtu wu nekk kon liñ leen di ñaanal ci loolu mooy sunu borom gën leen a may ak wér may leen gudd fan defal leen kàttan ba li ngeen bëgg te yéene ko lépp ngeen am ko barakati xaadim rasul gannaaw loolu tamit xanaa yëkkati kàddu yi cant ak ñaan liggéey bi euh, sëñ Adi wax na ko léegi sëñ Assane wax ko xam nga ne Espagne moom dafa mel ne seen digg ak jumaa ji ak daayira Muxaddamatul Xidma toujours liñ koy wax bu set biñ koy wax rek mooy xaas suñu borom moo leen ko jagleel ndax ba ñu toog ci kanam suñ Muntaxa muy seede jëf ji matériel bi fa indi dolliwaat ci beneen liggéey ne leen na ngeen fexe ba matériel bi na ngeen ci jëf waaye na jëf ci jëmm ya fa nekk loola euh, dafa doon lu am am solo loo xam ne ñaar yooyu mënuñoo xàjjali ko te ngeen xam ko tamit di ko def muy jumaa ji mooy yax bi euh, jëmm yi fi nekk ñooy dundal li fi sëriñ bi bëgg ndax sëñ bu fekkee ne santaane ne jumaa ju rafet ak sorol yu gudd maanaa suñu borom may ko Euh, bëggutoon loolu rek waaye dafa bëggoon ku fi ñëw boo duggee ci biir jumaa ji gis jëf ji ak niñ ko nosee nga xam ne li ko taxoon a jóg mooy kaweel kalimatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah ci biir loolu nag wax dëgg yàlla ci li nga xam ne mooy taxawaayu daayira muxaadimatul xidma laata muy sosu bu set dama koy wax mooy laata daayira muxaadimatul xidma di sosu Espagne daana jëf ci jumaa ji jëf ji jóge Palma di jóge Canarias di jaar ci ñoom sëñ Assane ñii di jaar ci si ñoom sëñ Modou Habib ak Baye di Diop ñoom loolu lu yàgg la bi nga xamee ne euh, daayira bi sosoon na tamit ba léegi ba li may wax ak yow amul at mu jot ci liggéey yi nga xam ne moo gën a yitteel moo xadamatul xidma te Espagne du ci jëf moo xam koor la moo xam waajtaayu màggal moo xam matériel bu fay jóge ci ay oto ay machine ak ay baleek ay sarpière ak lu mu mën a doon yàlla dafa dogal nag loolu jàpp naa ne moo tax Cheikh Cheikh mun Mountakha xam seen Pastef ba tax mu santoon leen liggéey bi nga xam ne liggéey mënu koo gën a kawe njort muy tapis yi nga xam ne waxtu yu juróom yu nekk ñu ngi ciy julli maanaam mu am ay bokki taalibe yu ko jën loolu jooju tiyaabam yàlla na ci yàlla nañ ci yàlla lafal cat ndax loolu moom liggéey bu rëy rëy la boo xam ne moom mu ne su ko takk kon loolu jàpp naa ne Pastef boobu moo moo tax. at yii nag moom euh, sëñ Aliou wax na ko léegi ñoom sëñ Assane ñi dañoo sàkkoon ay jëwrin yoo xam ne ci dëkk bu nekk dañuy takk laxasaay di laaj addiya bu été jotee ak kii waaye ñu dem ba mu yàgg yéen ci seen bopp fédération bi ci njiital sëriñ Mbacke Ndiaye ñu xam ne kat wax dëgg yàlla liggéeyu Moukhaddamatoul ma ak Espagne kat léegi war nañ koo gën a nos ba tax ñu am xalaat bu rafete nii maanaam wutal ko coordinateur général xam nga sëñ Assane moom dañuy teewal ci réew yëpp foofu di yàlla mooy soññ waaye suñ bàyyi daam loo mu Cheikh sol Karim mii nga xam ne yéen jëwrin yi yéen a ko tànn samp ko ngir muy woot muy bu wooyee suñu aadi mi ca Palma woo woo woo El Hadj Abdou maanaam dañuy daal di jël ca dayra booba dañuy xam ne ñi liggéeyu jumaa ji kat taxaw na ñu ñu ñu fexe ba dugal ci loolu dafa gën a noppale ni mu nosoo daal dafa gën a noppale muy compte boo xam ne spécial association Moukhaddamatoul Khidma nekk fi nga xam ne euh, daayira yu nekk dañuy verser seen addiya muy doon loo xam ne wax dëgg yàlla amatul benn coono loola def gu ngeen ko def seen yëfi bopp la loolu moom nag loolu nag du ci ñun kenn ci ñun xëy suñ Sëriñ Tuubaa moo leen ko moo leen ko xaasal loolu moom ñi ngi ciy sant bu baax a baax a baax taxawaay bu rafet rafet la te loolu ñi ngi ciy sant jëwriñ yëpp yéen ñi fi teew moo xam Sëriñ Ngañ Kama mi Sëriñ Baye Abdou wax na ko léegi ak sëñ Assane moom dañ koy bàyyee ak suñu borom rek su ko defee liggéey bi nga xam ne mooy koor gi gis nañ jëf ji ngeen ci jëfoon muy lu aju ci jëm ci ndog yi ak lu aju ci social bi loolu sëñ Aliou seede na ko léegi at mu jot nag noonu lay demee at mu jot noonu lay demee loolu tamit di lu am solo màggal gi tamit. E, jumaa ji ñaari ñaari mbir yi gën a rëy ci moom mooy koor ak màggal waaye diggante bi du taxaw liggéey bi du taxaw ndax xam nga ne yàgg naa ko wax maanaam bâtiment bu bu mag rek immeuble maanaam soo indi soo génne woon bit see entretien kenn xamut lu muy doon lu muy toll kon jumaa ju toll nii jàpp na li koy doxal ci wàllu entretien lu bëree bëri la kon loolu taxawut waaye màggal nag su ñëwee li tax suñ bit see màggal di di di di di bëri mooy depuis le deux safar la première safar lañ tàmbali def entretien sénéral ci jumaa ji biir ak bitti kaw ak suuf mu koy wax mooy sorol yeeg fépp lépp loo xam ne mooy làmp bu lakk wala ventilo bu yàq biir jumaa ji ak bitti jumaa ji daayira bi dafay saisir ay membre am ñoom ñëpp sas leen kenn ku nekk indi ñi nga xam ne matériel lañ mën a indi ba ñu nekk Dakar ay kankay rek refleurus ak yëpp ñu jënd matériel def entretien jumaa ji loolu dafa munta ñàkk ndax jumaa ji mooy barab bi nga xam ne ku teg sab saak boo màggal see faaw nga ñëw fi kon jaaru nañu waajal ko ci lu mel noonu loolu nag budget bu baree bari la su ko defee biir màggal gi tamit sëñ bi ni ko ñaane c'est que màggal dañu bëri ay gan te euh, bëri nañu fi ñëw kon ku fi ñëw war nga fee fekk ak nosu fekk fi diine fekk fi tamit lu jaar yoon moo tax lu ëpp junni nit ci ay membres yi Moukhaddamatoul Khidma danañ fi nekk màggal lu mat une semaine lii seen liggéey mooy sàmm worma ji ak taxawu nit ñi ba ñu ñëw def seeni siyaar niñ ko bëggee ak it lépp loo xam ne lu fi yellut la ci penc bi niñ koy teree bu dul màggal ñu teree ko màggal ñooñu nag mbooloo mu dul jeex la boo xam ne barki dem rek dem nañ dakaar doon leen defal ay formation ci Masaalikul naan na siiwur nañ ko ci MK ngir tàggat leen ngir ñu xam comportement yi ñu yor ñun ñi nga xam ne ñooy jubbanti nit ñi ngir ku fi ñëw ñu man laa teg ci yoon ñooñ tamit nag dafa laaj soo leen téyee fii ci barab lu mat une semaine nañ war a màggale ci seeni kër nga yore leen ko noonu muy di leen berndeel ci fànn yëpp di leen taxaw loolu da ciy benn pàcc wàllu pàcc mi tamit ak taxaw nit ñi ci seen wér-gu-yaram fii màggal gi xam ngeen ni mbooloo mu bëri ak tàngoor bi ak nit ñi nga xam ne tamit dañuy daanu am ñoo xam ne dañuy xam ay garab ay jumtuwaay yi faj yu bari dafay mënta ñàkk moo tax centre de santé kii euh, hôpital bu nekk fii boo xam ne commission sociale bi dafay soxla jumtuwaay yu bëri yoo xam ne du fi mën a ñàkk loolu lépp boo ko dajalee ak liggéeyu commission culturelle bi nga xam ne léegi la conférence bi jeex dañuy def exposition bu mag boo xam ne fii loolu tamit budget bu mag la laaj ak fànn gu nekk ak taxawu bàq yaag armeel yeeg yooyu yëpp daal dafa laaj ay taxawaay yoo xam ne bit budget la laaj kon nag jàpp naa ne loolu moom xam ngeen ko yéen ñu ko gën a xam. moom dama ko jëlee loo tax xëy na maanaa tamit addee ji wax dëgg yàlla naw nañ ko lool addee ji nga xam ne ñëw na tàbbi ci liggéey bi lu am solo la tey dana ci am solo lool kon mbir mi du ñun du yéen mbirum sëñ Tuubaa la moo xam ne du lenn kenn lépp ñëpp la sëñ Tuubaa daal moom <clears throat> mooy taw feexale ku ci nara liggéey nga liggéey ci ndax moo ko waxal boppam barab la boo xam ne ku ci feeñ dootoo réer ku ci réer dootoo feeñ kon yàlla nañu sëriñ bi dimbale rek ba li ñu def lépp ñu mën koo def te suñu boroom musal ñu ba ñu bañ cee gis suñ bopp ci lenn te suñu borom dolli kattan suñu mbokki taalibe yi sëñ tubaa dong lañ bëgg luñ gis fu ñu leen woow ngir sëñ tubaa ñu wuyu kon yàlla leen yàlla may xéewal ak wér te may leen ay yu ñu mën a liggéeyal sëriñ bi te defal ñu màggalug jàmm defal ñu tawfeex barakati xaadim rasul te fajal ñu aajo yëpp aajo yi biir ak bitti ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di tënk kàddu yi foofu lu ci dëng rek xëy na ci man mi wax la waaye lu ci jub ci kàttanu borom bi la asalaamaaleykum wa rahmatullah su ko defee <clears throat> ñi ngi ñaan tamit ci daraja yi màggaayu barab bi barab bi ñu toog di teewlu ci borom barab bi muy xadim rasul di ñaan ci bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Espagne wala ñu nekk ci meneen réew te duñu seetaan te doon ñu bëgg a jëf ci sëriñ bi sunu borom yéwénal seeni mébét moo xam ku bëgg am kayit wala nga am aajo yi e, wér wala nga am aajo yi e, xaalis bu bari bu mën a doy boo xam ne da nga ci mën a teral sang njaboot joxe ci addiye yàlla na ko sëriñ Tuubaa defal te may leen ko teg ko ci seen loxo te sàmm ko ba mu dem fu mu war a dem te sekkil ko lu am solo la ndax Sëñ Abdou Khadir moo waxoon ne tuubaa day <coughs> barab la boo xam ne jëf jëf ju nekk ju baax defe ko fi man moom may gënal ndax fi la gën a sekkee fii nag mooy xolu Touba muy jumaa ji kon jàpp naa ne ku fi jëf sa jëf fi lay gën a sekkee ndax dafa ñor boroom lool nag dafa ñor boroom waxuma la dara waaye di jaar ci penc mi di di dem rek ñi koy def duñ yem ak ñi fi dut jaar loolu moom loolu moom lu wér la maanaam moom moom kon nag ñi nga xam ne moom dañoo yor matt gi gàddu ko fas yéene jumaa ji lu mu soxla ñu def ko ah ñooñu moom wax dëgg moom moom moom xel war na cee dal waaw ah, kon sëñ bi yàlla neen yàlla defal wér te defal ñu ko defal leen kattan barakati xaadim rasul kon su soo defee ñu yemale kàdd yi foofu sëñ bi ñaan asalaamaaleykum wa rahmatullah